verdict bi nga xam ne euh, wàcc na démb joxe nañu ko euh, dafa dafa gënal ñenn ñi nga xamante si ni ñoo nekk ci ci waa yeewi askan wi. ayons le courage de le ci biir yeewi mm. ci bëgg politiquement Ousmane Sonko leen. dañ koy compter compter. Mm-hmm. xam nga. Euh, sérieusement malheureusement. je vais dire qu'il a eu raison. Mm-hmm. Bougane Gueye Dany. quand dès le début mu ne. du ma bokk ci mbirum c'était son propos ay mbirum dëmmante parce que sentiroon na wala gisoon na ni ci biir yeewee askan wi àndandoo la boo xamee ni am na lu ci lu ci ñuul maanaam euh, ñàkk euh, sincérité am amoon na ci tey mu ngi feeñ et attention xam nga Barthélémy la ñu dégg mm. dañ dégg wala ñu gis taxawaayu keneen ci biir coalition gis nga Mansour Sang dafa utiliser le mot ennemi en politique on a des adversaires on a mhm. des partenaires on a des coalitions mais coalition bu ci mel ni Yewwi Askan Wi bu ci mel ni Benno Bokk Yaakaar xam nga lan moo tax exemple boobu ma jox ci ñaari coalition yi Benno Bokk Yaakaar tant que président Macky Sall et le président de la République gongo dañuy ànd bés bu wàccee Benno Bokk Yaakaar tas parce que intérêt moo leen fa téye tous les autres partis politiques ñu nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar sama baat ci kaw intérêt moo leen téye parce que y a le président de la République qui le président de la coalition mais gis nañ fi parti démocratique sénégalais bi Abdoulaye Wade nekkee président de la République kenn nangu puus xanaa moom puus la mais tout le monde est resté nga bëgg ko nga bañ ko da nga naan daa toog parce que mooy président de la République ba mu wàccee ña ca bëri ñu ci ëpp génn nañu ci partem ba dem créer ay coalition ay yeneen i parti yeneen i mbir ak yeneen gis nga ci Sénégal mooy politique boo xam ne sànq Mansour mu ngi wax lenn lu am importance. conviction amu ci. certains restent avec leur conviction politique. du ñëpp parce que loo gis lu nekk am na exception. mais conviction politique dañuy man fii laa bokk te ay quelle que soit la situation nu mu fi génn. Mm-hmm. amu fi bariwu fi. lu jëm nag ci mbirum Barthélémy Dias man ma question c'est c'est quoi le projet. Mm-hmm. lu tax surtout à ce moment. précis projet waaw Ouais, très le projet question. de manière générale, mais son projet et le projet des autres qui ne sont pas encore sortis mm. et qui vont le faire ou qui le font ci suuf am na ñoo xamee ne si waxante ci biir man je je vais pas citer de nom mais am na ay politique ñoo xamee ne ñoom ñëpp dañoo ne opposition lañ bokk mais koo ci toogal mu ne la may diw man je diw moom bugguma dara yi moom waaye parce que ñoo àndoo donc nañ continuer rek en attendant ins xaw ma manque de sincérité mu ngi ci tous les hommes politiques pas seulement du côté de l'opposition mais surtout du côté du pouvoir aussi parce que tout simplement am na lu ñu tey ñoo bokkandoo benn mbir te tey il y a une question que j'ai vu ça hier ou ce matin sur euh, un des euh, groupes WhatsApp yu ma yu ma bokk et je pense que même am na journal bu ko bind le F24 lan le mouvement F24 mhm. xamul tax benn objectif la am wala moom la ñu wax ne ni moom mooy principal bu Macky bokk fi toll nii nag ah am na beneen objectif yu ñu war a am de na ñëpp bokk bu Macky bokk mooy seen premier objectif mais beneen objectif bi xam nga mooy war a doon ban na ñëpp bokk y a beaucoup à dire sur ces issues alors benn bokk bokk arrangé wu xam nga la tax moo tax là encore mm-hmm. s'il est candidat ou il n'est pas candidat ñaari cas de figure mu ne nekkatuma candi du ma candidat damay organiser coalition tas moom bu dee moom man Macky maa ngi leen wax boobu ba léegi nii wii nii non mais mm-hmm. bokkutuma du ma dem ci élection présidentielle deux mille vingt quatre consulter naa ñam war a consulter xool naa sama kii waxtaan naa nag sama njëgënaay la ma waxoon démb delluwuma ci ginnaaw bokkuma bennoo tas. mais est-ce que à dix mois des élections Birahim yoon la ba léegi mënagul wax nii wii wala nii non. bu ko neexee à un mois des élections mu ne bokkuma bu ko neexee mais de à un mois des élections bokkuma comme ki ñëw ne ni danaa doon par force candidat bu ko neexee à deux jours des élections mu ne finalement bokkutuma. donte bindu naa bind nañ ma génne nañ samay ay affiche ak ay carte ak yeneen ak yeneen mais bokkutuma ma ma demoon dematuma c'est son droit c'est le droit de Sonko c'est le droit de Barthélemy c'est le mm-hmm. droit de tout homme politique ci wàllu constitution mu ne damaa bëgg bokk ci élection mm-hmm. léegi nag conseil constitutionnel mooy valider wala mu bañ a valider mm-hmm. mais li tax ma ni la ma defal la benn relation entre benn Bokk Yaakaar tey muy coalition bi ci boppam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Wallu comme waa Yewwi comme waa yeneen i coalition mooy intérêt moo leen fay téye mhm. bu fa intérêt bi jeexee kenn dootu fa des wala mu tasaaroo mhm. tey Sonko lañ jël mais imagine que dans une coalition hétéroclite comme Yewwi Askan Wi mhm. normalement ñoom ñëpp ay leader lañu Ousmane Sonko jiite parti euh, Khalifa Babacar Sall yàgg ci politique Déthié Fall jiite parti ak euh, ak ñeneen yàgg ci politique ak ñeneen ak ñeneen ku ci mm. nekk da ne man damay doon candidat ci élection présidentielle mm. lu ñu lay wax ne la suñu projet moo nekkoon àndandoo élection territoriale mm-hmm. àndandoo élection législative mais bu ñuy dem présidentielle ku nekk ñu naan yaa xam ne tojee sa bopp jinax mm-hmm. nga demal sa bopp mais aujourd'hui ñu jël ku mel ni euh, Habib Sy ne ko yaay président conférence des leaders ñu waxante dëgg Habib Sy j'ai beaucoup de respect sur lui pour lui plutôt sur mhm. son parcours politique mhm. mais ci wàllu nombre ci wàllu nit ñi ko topp poids mhm. électoral nga il ne fait parce que gis nañ ko ci ay élection man je mesure par rapport ak élection muy présidentielle comme législative wala territoriale il ne fait pas le poids face à un Ousmane Sonko il ne fait pas le poids politiquement face à un Khalifa Babacar Sall mën na doon nag faiseur de roi ni ñu koy waxee mais il ne fait pas le poids par rapport à ces gens euh, ku ci mel ni Déthié est-ce qu'il fait le poids politiquement parlant Euh, gisuguma mu prouver ma ko. ci wàllug ay élection yoo xam ne dañ naan PRP. moo jël P wala moo jël deux wala yu mel noonu ci wàllu parti donc ñoom ñëpp ñu jël daanaka bon an mal an contre mauvaise fortune bon mm-hmm. cœur ñu bëgg ko ñu bañ ko mm-hmm. soo ko nekk le leader naturel de l'opposition mm-hmm. mais ci naka la ko nekkee parce que on l'a créé bi may lan euh, dina nañ ko xañ ko ci ay droit am te ñu ngi gën a nag di ko gën a renforcer parce que tout simplement bu état di wax wala ñenn di wax ci wàllu wàllug pouvoir c'est un monstre on a créé un monstre mais ils ont non seulement créé un monstre politique entre guillemets mm-hmm. mais ils ont nourri ce monstre mm-hmm. seen ween lañ ko jox muy nàmp ba mu tollu mm-hmm. fii noonu la demee ah. bu ñuy woowee monstre dañu nàmp dañ ko nàmpal ba mu toll fii léegi nag c'est pas c'est presque impossible nga mën a rey boobu les monstres léegi nuñ koy jaarale ci ay mbirum justice euh, tooñ na ay la yowén tooñ na mm-hmm. léegi nañu seet nu ñu bësee mbir moom dem na ñu ngi doon wut prétexte pour seet nuñ koy amee mm-hmm. gis nañu ni dem na ci bërëb boo xamee ni du du turam du santam du taxawaayam du mm-hmm. dayoom moo ko waroon a yóbbu foofu ñu ne on utilise c'est un piège dem na fa il y a quelqu'un qui le disait qui aujourd'hui est compagnon ou ami ami avec lui mhm. mi Mimi Touré ba nekk Benno lu mu doon wax Benno Bokk Yaakaar yorewul carnet bu euh, euh, kiiw suite ba euh, nu ñu koy weeti carte carte carnet rendez-vous bu agenda bu suite ba mhm. ka fa dem yaa fa yóbbu sa bopp ba ngay dem demoo je le disais il y a il y a des ci ginnaaw il y a des mois ci ginnaaw année loo fa wuti woon tey ñu ne nag comme dem na fa wuti woon na fa dara ñu accuser ko ou pas mu def mu bañ a def mm-hmm. yàlla rek a xam mais ñu ne c'est on utilise ce piège là gis nga insi ñàkk sincère ci mbirum politique Sénégal da cee fës te on le verra encore dans quelques semaines waxuma ay mois de mm-hmm. mais avant élection présidentielle mm-hmm. ak sincère boobu ci lay gën a feeñ ci homme politique yi. Cheikh euh, fi mu ne li ñëpp di laaj fi ne mooy lan lan mooy ëllëgu euh, yeewi askan wi ak ak li fi jot xew.